Thierno Moussa Sow ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Khady maa ngi lay fay di nuyu seen seen seen seen internet yëpp di leen siyaar di leen ñaanal jàmm. yow mën nga ñu wax déjà Thierno Moussa Sow lan lay def euh, dans la vie. waaw na Moussa Sow day dafa dafa bëri ay affaire nag tey ñi ngi ci film yi suba ñi ngi animé ay émission euh, bu ñu fi jógee ñu ngi ci wàll bi ñu xamee li ñu doon muy wàllu sunguf ak reen ak yu mel noonu aha alors Thierno Moussa Sow fi ñu indi fii déjà doy na waar <laughs> ndax fii moom xam naa ne ku am fit dong nga fi ñëw euh, donc euh, mën nga ñu wax fii fan la. yaa ngi ci laktanu jàndeer bi nga xam ne moo liqale àllum kaañ ak dun yi nekk kayaar muy yoonu gaay yu baax yi nga xam ne saa yoo fi ñëwoon ay min wi di nga fi fekk say moroom boo amee bët buy gis ñuy fo ak ñu boot seen njaboot di nga leen fi fekk ak mag ñu yàgg te xam lépp di nga leen fekk fii ci béréb bii ñu nekk nii. maanaam béréb bi bérébu jinne la. yoonu jinne la seen féexlu faay la li ngeen di wax plage fii mooy seen plage. fii nag lañuy ñuy àttee lépp lu ñuy àtte ci tund bi ñoom fii lañ koy àttee fii lañuy ñuy ku ñuy may tamit fii lañ lay maye. mbaa wóor na parce que ngelaw yi li ñuy sentir nii du ñu dugg. waaw ngelaw moom moo am Dakar ki moom ngelaw jàmm kese la waaw du ngelaw dara wax fa dëgg yàlla ngelaw rek bu bàyyi ko suñu borom la jaar ci ndox mi ñëw ci ñun wallahi euh, ñu ñëw ci euh, benn film boo bind déggeen la tudd su ma juumul. mbakku la film bi tudd. mbakku ñu ñëw ci film bi mbakku euh, da nga bind film bi waa a génn projection bi. dimanche lay doon à 17h à Sorano. d'accord ñu ñëw euh, ci film bi film bi mën nga ñu wax tuuti euh, nan euh, déroulement beeg nan la demee ak nan nga inspiré woo ba def film. film bi nekkul lu ñuy inspiré wu waaye lu ñuy nettali la comme xale boo xamante ne jamono yi ñu toll ni maag yow njolloor mu feebar waa bu góor nekk fi yaayam dëkk ci village war a dox juróomi kilomètre fekki magu papaam pour mu fajal ko xale bi mu dem ba foofu euh, fekk fi góor gi mu seet xale bi mu gis ne kii ay jinne ñoo ko jël te dañ koy jël ñu jox leen ko mbaa ñu faat ko mu bañ a yokk problème nag mu jël benn aaya rek ndox boo xam ne defu ci dara jox maire bi ne ko sa doom bi du gaañu demal dellu waaye dellu léegi walla ñu julli takkusaan na la fekk ci kër gi kooku jógewaat diggante une heure ak deux heures di dox ci àll boobu ba génn village bi rek gis ne xale baa ngi bëgg faatu mu toog ci benn garab xale bi xifa xippi léegi xam nga nit buy faatu duñu bëgg ay bëtam mu aj ko léegi nag ni mu koy sëlëme am lu ko feeñu ci garab bi xamal ko ne sa doom bi sunu doom la soo munee ma garantil la ko mu bañ a faatu bu mu am ñeent fukki ak juróom dina fekk nga faatu bàyyi ko fi yaay ak doom jëmul proposé alal wala leneen waaye comme diir bi gis na ne baaxatul mu nangu ñu ne ko sa doom bi dina dund quarante cinq waaye du ci am doom mun na ci dégg lu ne mën na ci nekk lu ne waaye du am doom en plus fu mu nekk ba quarante cinq yi jot su ñibbisiwul dañ koy jël si buñ ñëwee luñ ko fekkal foofu dañ koy faat faat ko moom ci boppam mère bi nangu lépp xale bi mu sëlëm ko tuuti mu ximmaliku sëqët mu jox ko ween mu nàmp léegi nag loolu bu ne bu xoolee doom ji contrat boobu day ñëw ci moom loolu mooy euh, expliquer mbakku uh-huh. d'accord ñu ñëw ci euh, film bi ba tey mbakku doom jooju noonu ñu for ci weyu bët ne yow la Thierno Moussa Sow xale boobu yow la woon waaw euh, en tout cas ku la mën a nettali histoire xale bi la mais yow la waxal rek yow la woon xale bi mën na bañ a nekk man sax. Thierno Moussa Sow ñu ngi ci dëkkuwaayu jinne yi de <laughs> waxa xale boobu noonu yow la woon. xam nga li gën a am solo mooy xale boobu day dem ba yàgg toxu dëkk feneen mu dem ba yàgg nag xeexu fami am ñëpp accusé ko ne moom dafa am pouvoir bu mu jël boo xam ne du am doom. du am doom léegi nag day commencé dund lu xaw a metti ñëw ci lu metti loolu yëpp mais euh, bi sa yaay defee pacte ak jinne yi ba ñu bàyyi la nga dund après sa yaay ñaataat la dund dundaat <laughs> dund na ba 2004. fekk nga am ñaataat may dugg jege sama fanweeri at ak juróom 35 ans waaw mu gaañu nag mbir mi gën a leer amatul intermédiaire. sa yaay moo nekkoon intermédiaire bi mais moom laataa mu gaañoo est-ce que expliqué na la pacte bi mu defoon ak jinne yi. xam nga man condition yooyu taxoon na ñu teel ma yóbbu ci juróomi ak génnee ma secteur boobu yóbbu ma sama kër maam ca wetu diiwaan Silla fu ñuy wax Belel Jam euh, fekk xamaguma lu xew. boobu boo dee xool ci RTS ci fajar bu jotee am na ku doon wax euh, Sénégal ay sunu gaal balaa ma xam fu ma nekk foog ma dégg lool rajo bi di ko wax walla ma dégg nodd li taxoon mooy balaa ma doon tëdd da doon metti dama daan gis yoo xamante ne mag ñi mayuñu ma may wax ak ñoom aw ma communication ak moom ci àll laa yendu damay sàmmi su ma ñëwee duñ ma bàyyi ma toog dañ may dàq ma tëdd léegi nag balaa ma tëdd di nelaw damay gis loo xamante ne lu ci bëri mënuma ko expliquer mais am na loo xam ne bu doon mm, bu doon waxtaan la am na lu koy tëj mooy benn yat boo xamante ne dafay tourner mel ne ngelaw yet bi dina mel ne di nga xool comme dugub boo xam dañ ko wol mokkul noonu la yat bi mel saa yu egseeg sama kanam rek damay mel ne làmp bu ñu fay ba bët set balaa ma nekkaat ci jàmm aussi ñu taal rajo yooyu wala ñu nodd ma dund loolu nag juróom-ñetti at foofu nag cinq yi ma fa amaale woon ak juróom-ñetti at yi léegi damay daal di nag di commencer di di mën a sàcce di wax ak parken su ma nekkee ci àll bi ñi may sàmmandool dañ may jàppaloo ay jaan mais yàlla dimbali ma tamit musuma nangu jàpp jaan yooyu waaye ñoom bu ñu tegee seen loxo jaan yi dinañu ci jaar dem dinañ japp jani mais man duma nanguma japp jani dina xey tamit benn bëss mooy dox ci all bi ma gis jaan yu bëri waye sam yoy ñom duñu am problème jaan yoy te sam yoy ñom sa yoko ko dañ koy weddi légui nak ci la sama yaay ñew ma expliquer ko xamal ko ne li dama koy am problème ni, mu ñibbi ci wax sama mam bu jigen mu jëli ma ma ñib ma ñibbi sagata get fi mu juddoo village bu ñu wax Ñeer cissé na la wax lu graw nak village yi ma jaar yépp ben amagu ci école français wala benen école parce que loolu tamit dafa am benen côté yépp mu metti trop ba yag nak euh, ben bëss waxtaan ak sama papa euh, expliquer ko nak fi bu ma génné man dafa am lu may gis euh, pour man ñëpp koy gis pour man limay dund ndaw lu né mom ngay dund sama papa nak ci la secteur bi pour mu bañ ma am information yi yëpp mu toxal ma yóbbu ma fu ñuy wax ndaam mu jël benn àll rek ñun kese ñoo fa dëkk ma dëkk foofu nag ma fa dëkk tamit bu foofu métteeti mu dawal ma yóbbu ma Pire kër Mbay Tijaan Ndoy transporteur foofu metti mu dawal ma yóbbu ma Géejuwaay foofu métti mu dawaat génnaat ba nii may ñëwee nag dëkk bayax fii nag la tare gis nga fii fi laa rëcce métier euh, sa yaay ba mu gaañoo ba mu génnee àdduna nga ne ci la affaire yu bëri leer ci nga amatul woon intermédiaire affaire da la daan feeñu di wax ak yow. waaw xam nga man nekkuma woon ku ñuy feeñu mais ku ñuy doon lor la ci naka. ah benn psychologiquement nga xam ne yow 45 cinquant boo ko amee da ngay gaañu déjà rek benn dut la ñaar. nga xam ne yow ak li ngay yëngoog li ngay dal yëpp doo am doom ñett nga xam ne yow fi ne nii sa lépp pouvoir boo mënta am ak lépp c'est limité nekk nekkal ak président Macky Sall nekkal ak ku mënti doon du la jëriñ dara nit du la jëriñ porte dañu fermé amul benn nit pour la mun a jàngal dara wala mu def dara wala leneen lépp da fermé léegi yow li da ngay nekk nit ñi di kaf ak di jëli information foofu ngay dund ñaari dund ngay dund loolu déjà rek lor boobu luñ ko yàlla suñuy jaboot waaw. d'accord mais nga yegg ba 45 ans parce que war nga am 45 ans dépassé nga ko ba nga yegg ba ngay waaj a yegg 45 ans yaa ngi doon xalaat ne pare nga ci da ngay waaj a dee. waaw mais xam nga dañ ñoo jàngal seet dañuy jàngal seet jàngal ñuy affaire. gis ne maa danger mais dafa daf daan gis aussi ci mbégte lay mais bi mënul xam li man chaque année war naa a dagg war naa mën a bi ngay war chaque année mooy sacrifice bi ngay def pour mën a dund euh, comme caution loué nga joxe caution deret bi yow deret bi mooy sa caution pour nga dund. mooy ma mën a dund non seulement dara ma mën a nekk en l'aise duma ma daanu du ma lor kenn dina du ma nekk tamit koo xamante ne boo egsee ci man nga def li nga bëgg a def te dinaa yëg li ma war a yëg foog deret boobu di génn mais deret boobu noonu nan nga koy génnee xanaa doo jékki-jékki jël jaase di dagg sa bopp wala affaire gisoo fii gisoo fii fii lañ doon njëkk di génne bu njëkk fii nga daan xotti chaque jour waaw boo xottee ba pare bu nàccee nga ñaw am na feneen feneen mais li ma lay wax rek euh, métti woon na mais jeex na. deret bi fi ñu toll nii génneetoo toog lay génneetuma dara. am na quest ba 45 ans yi passé nga dund qu'est-ce qui s'est passé ba léegi euh, joxeetoo caution dara. dama jógee ndar boobu maa ngi yore benn 19 dawal ko ñëw ba egsi fi nga xamante ne. moom mooy Kébémer ma daadi jàdd jël euh, tali bi génne Mboro ma génne mbooro daadi jubal bayax ñëw ba fii ñuy wax laktan bi fii pont bi nekk tey diggante une heure ak deux heures sama oto fay fii ma oto sama sama oto fay na jàpp naa ne xëy na dama am croix bu dagg foog ma wàcc ubbi sama capot bañ a taalaat bi ma ñëwee xool croix bi daggut ma daal di xool courant bi mi ngi ñëw ma jéem a def lu ne oto bi mënut a tàkk diggante boobu dafa mel ne am na ñu bàyyikoo ci montagne bii di wàcc si di yéeg si ci tali bi ñuy wax ma leen di dégg bi ma leen déggee nag. comme dama tam dox guddi dama japp luy dox guddi rek nit la ma wo len pour ñu dimbali ma jinne yi nek ci région bi dafa amone jamono yo xam amna serigne bo xamantene fatou na serer la won ku len sonalon la duma tayit jinne bu ko bu ko bu ko nit de duma nit rek moko ci meuna genné génnee deg ba ñëw fii nag ñu sant ma mission dama mission bi dëgg-dëgg nag mooy nga fexe ba nit kooku mu may jàmm sa oto bi tàkk dem waaye ñu jàppaleel leneen ci laa jëngu ci affaire boobu nag def ci li ma ci war a def yàlla dimbali ma muy mission boo xam ne trois mois la ma réussir ko ci quinze jours ma ñëwaat fi nag def beneen waxtaan rencontre yenen rencontre nek ci lañ ma xamal sa problème kajoor mën nañ ko régler ba do delu waye di nga am dom. ci lañ ma xamal tamit sa problème bi mën nañ ko régler ba nga am liberté ba légui dootu ñu xam fo toll ñu la gis euh, séeréer bobu nan nan nga def ba euh, dumatul jinné yi waaw loolu nag du euh, wax dëgg yàlla mënuma la ko wax ah, ah, affaire la ci sa xam-xamu bop dal waaw affaire la xam nga nit ñi ñun sëriñ si nii kenn ku ne boo duggee ci domaine moroomam te yëgu ko mën nga def li nga war a def surtout boo amee benn accompagnance boo xam ne jinne moo la accompagner waxuma nit ñi nag ne missionnaire u jinne laa wala leneen mais dama lay wax ne rek lii mooy koosu mbakku mais est-ce que doo doomu jinne quelque part déedéet Ah, yow jinne yela la sauvé ba nga nekké lir jël la ne la sen alal nga ñom kon doomu jinne lor nañ ma lu toll non suma ma doon jàpp samay ennemi ñom la heure bu sama morom yi sen doom sey sëy nañ dañuy ñew ci loolu parce que nee nga dañ la tere woon am doom dañ la dañ ne woon doo am doom euh, malgré tout takk nga jabar ba nga takkee jabar yan jafe-jafe nga am ak say mbokk sànq yaa ngi koy expliquer ci ay wax niñ la taxaw man bàyyi naa ñetti jabar kenn ki sama doomu nijaay la jot te sëy si maa ngi koy jaale papaam euh, kenn ki ay doom bàyyi lañ mu nekkoon sama aawo mais problème mooy jigéen fu mu dul am doom mënu fa nekk mais attends ñoom daanuñu woon ëmb wala dañ doon ëmb mu yàqu même soo ëmbee tamit dañuy ñëw bu fi fi ngay sentir ne ëmb nga dañ lay bàyyi ba nga xamante ne fi ngay yaakaare ne léegi nga am doom ñu yàq ëmb boobu ay ñaata mois lañ daan ëmb avant mu yàqu. fi nga xam ne fi ngay gën am espoir mais man dinaa ko xam. di nga xam ne ëmb bii du yegg. wallaahi dinaa xam bu waree dañ suba dinaa xam dinañu ma informé ne suba la yem loo ciy dund nga dund ko foofu foofu la bànneex bi yem imaginel nag crime yooyu ak métit boobu. à peu boo doon xayma ñaata doom nga perte ñaata grossesse. bëri na dina mot dix huit. waaye dina mot dix huit. dina ko mat ma dem nag ba toll ci diggante boo xamante ne nag famille yi tamit dinaa leen ko baal mais dinaa leen wax ne ñuy xoolaat li ñuy wax àdduna jarul yenn yi ñu téye ma traité ma koo xamante ne dama jël ci kër gi loo xam ne waruma ko jël ñenn ñi yor seen làmmiñ ne ku fi jël ëmb ma génnee la ñeneen ñi ne dama bëgg tur ak dara jeeg alal moo tax du ma am doom am na sax nettali nga ba ne eh, am na ñu naan da nga daan bu sa jabar bu ëmbee da ngay dem ci ya dañ doon wax ne sama jabar bu embe, dama koy yóbbu si armel yi am luma def dom bi yàqu sama pouvoir yokku sama alal yokku wul noonu waroon nañoo gis ne musuma nek ci loxoy kenn waroon nañu gis ne sama pàpp musu bi ma juddoo rek la noppee dëkk fenn waroon nañu gis ne ah, li ma dal warul mën a dal nit ci coobare boppam parce que du ma dof waroon nañu gis ne dañ sama dama daan able comme ni ñuy ablee kudd ku bëgg ku dugg ci teen ci teen yëpp man maa ciy dugg waroon nañu gis ne dama daan dox Louga cees ci ay yónni ci lu leer waa kër Ndike Mbaye nekk Thiès xam nañ ko waa kër Ablaye Thiam xam nañ ko ñëpp xam nañ ko waroon nañu gis ne doom laa boo xamante ne sama mënul mënul doog man journée ba jant soo parce que dafay metti foog ma leen di làqu tuuti di dem fii waroon nañu gis loolu waroon nañu gis ne tamit am na yoo xamante ne nit kese du ci dogu ñëw rek fekk loo xamante ne lu ñu war a liggéey ci ay at la mu ne lii mooy am te bu koy wax du ko sentir du ko xam te noonu lay demee waroon nañu gis ne lu mu mun a am ci àdduna tey bi ma amee doom nag léegi situation bi réglé ñëpp wax te boobu ci la ñu soog a comprendre ñenn ñi dafa mel ne seen àlloo dafa dëxewul côté boobu mais nit kenn du ko wax bëggul am doom man mënoon naa bañ a amaat jabar parce que toll na woon naa moment yoo xamante ne takk soxna may yeewu di ko gis dafay metti ci man parce que bëgguma mu nekk fi rek abadan du am doom waaw. mais après finalement nan nga def ba sa jabar téye ëmb parce taawuloo taawuloo nga am nga doom bu góor suma ma kooku judduwul ci kër gi dafa dafa yaayam dafa tollu ci quatre mois mañ koy fayal muy def sante di def lépp mais pour mu sewee mook doom ji il faut ma tas bi parce que man waruma yor doom boo demee ci kër googu ba léegi xale foofu fa kenn dëkku fa. kër goo xam ne xale mosu faa juddu. waaw. ba nga ko fasee mu dem. continuer foofu sorewuñu mu nekk fa ba am doom am ñu ma def tudd doom bi tuddee ko papam mënul dellu si sama famille lépp rek ma dégager ko léegi nag. na soo su sëyeetoo leen moom mi ngi ak sa doom. waaye ngi ak sama doom. munoo récupérer sa doom téye ko. Mm, xam nga loolu dafay laaj ndànk-ndànk ñoom téyewuñ ko te mën mën naa ko yor mais dafa am loo xamante ne ndànk-ndànk. léegi takkaat nga soxna mi ngi sa kër foog naa ne kooku tam am na doom kumba moo tax ñu bind mbakku kumba moom nga tuddee film mbaxu kumba moom nan nga def ba mu juddoo sa biir fekk na léegi contrat bi wax naa la ne am na mission bu ñu ma fi sant ci benn sëriñ bi ma paree mission boobu dafa am lu ñu ma war a fay li ñu ma fayoon li ma ci gënoon a intéressé mooy ma weesu 45 ans yi li ma gënoon weesoo ma yeewu ci sama kaw lal gis sama doom di nelaw parce que xam nga dara gën a sa papa sa yaay gaañu nga nekk yow rek loo munti am yow doo dend sari ca doo xottil kenn doo def dara amoo doom amoo dara ba maa yooyu bu ngeen ko dundee di ngeen xam ne ndaanaan dëgg la ku ko ci dund boo dofut boo muytuwul nga faat sa bopp parce que dafa métti du moment yu yomb nettili leen ko nii rek mënul tax ngeen dund ko mën ngeen ko traité neneen mais képp ku ko ci dund di nga xam ne billaahi wallaahi wal kitaab bi jàmbaar laa da ngay dund dund fitna dund dund bu metti dund lu loo xamante ne kenn du la yërëm te ñoo mën ñoo la yàpp des fois sax mën nañ leen ne doo góor dara gënt garaaw nag ñu lay traité na yow da ngay jël say ëmb doom di ko sa soxna di ko génnee di ko joxe ay sacrifice pour nga am alal alal bu lu mu lay jëriñ ñi ma bokkal ndey ak baay dañu xëy woo ma réunion ne ma foog nga bàyyi liggéey bul fajati rab bul fajati jinne wala xam nga moment yooyu du moment joxe information du jamonoy joxe information mais jamonoy gérer ko la nga nekk rek xam ne yow daal danga nga fee toog mais bokkoo ci foofu dafa metti kon kumba juddu nga bëgg ko ba tuddee ko sa film bis bi mu juddoo laa commencé tourner mbakku muy nga dëpp tour bi def ko mbakku yo loolu loolu dinaa la tontu ci beneen numéro bu dul bi incha allah dinaa la tontu buñ demee ba kanam dinaa la tontu mais yow fi mu toll nii yaa ngi faj ay jinde ay rab ba tey ji non xam nga euh, man mun naa la ne euh, liggéey boobu dama ci xaw a teggi sama tànk ci côté yooyu su ma sañoon damay écarter lépp lu bokk ci loolu parce que gis nga dinaa la wax leen bo toge sen keur léegi nga nan jinni jinni jinni bu yagge nga am ci ay xarit waaw ñom ñok talibi yelwan ci mbedd yam bo ne talibé ñom ñep ñu ñew ñet ñee gëna a yomb dalal waye teyelen nak ba duñu genn yomb jinne taximaan ak talibi képp ku mu neex surtout jamono yi nga xamante ne gor nañu garab yi nekkoon jam ñaajo yëpp àll yooyu yëpp gental nañ ñu ñibbi si ci taax yi ku mu neex nga am ko waaye del xool képp ku leen woo di nga leen jox mbaa ñu def la tayit ñu bëri maa ngi jàkkaarloog fi ñu jëm ak ñoom ñoom buñ la xewal buñ la xewalee ñu xew loola ba ci kaw suñ lay daaneel mi di lay doon aha ñoom noonu la ñuy def lu ñu la may amul continuité boo nekkee sa liggéey nag ba nga nekk ci star booy génn lu sa garde corps bëri ñoom ñooy ëpp parce que dañuy taxaw comme ay fans ànd ak yow foo jëm te doo ko gis te duñ nangu ko la yàqal loolu moo gën nag nga leen di woo ku lekk seen alal nga fay leen ko de seen weexal ku ko lekk am na ñoo xam dañuy wàññi seeni at ñoom boo leen di foyee ba di leen liggéey dañuy wàññi say at di nga am riir am tàkk-tàkk mais waaye yow de suite lépp la yàq te del seetlu rek ku leen wooteloo ba ñu ñëw ñu trahir la. kon jinne fidelul du mës a li ci gën mooy boo ko jekkoo nga rey ko jinne li ci gën mooy su la joxee ba nga yor nga jënd sa fetal nga rey ko. reyee loo gisul. am na non am na moment yoo xam ne jinne ku la wax ne jinne buy ñëw coow day ñëw comme ni ngay ñëwee. nekk nit comme yow gis nga boo demee ci ñu mag ñu bari dañ daan rey seen jinne fii am na sénégalais yu bari yoo xamante ni dañ daan takk jinne soxna muy aaye sa soxna di aaye bari na fi mais jinne moom li gën mooy nga teel ko wor waaw moom rek moo yeeyoo wor parce que bu la jekkoo rek du baax yow mi est-ce que wóolu nañ la nii ñan wóolu nañ ma ñun ñi di wax ak yow <laughs> est waxuñu ak jinne loo jàpp jàppal loo jàpp waaw. baax na temps yi tamit gis nañ accident yi bëri torop torop torop torop ci dikk bi torop ay moor yu dul jeex ñu naan yi fu jinne la. a ah, man dey mënuma wax ci accident yi tey wax fa dëgg yàlla li may ñaan rek. mooy yàlla na yàlla dimbali nit ñi am na loo xamante ne nag du du du jinne gis nga taw bu njëkk bu ne day am ay taw bu njëkk dama koy wax sama xale yi toujours bu ñuy voyage taw dama leen ne boo dox ñaar ñett jàppal na accident am na loolu moom ci dafa bokk si nawet nawet moom accident yi day bëri li ci des mooy ñi tàmm dawal Ndakaaru mënuñu dawal ci bitti loolu moom cause accident yi li ci des nag moom affaire jinne moom ñu yem ci mbàkku waaw. Ah. d' accord ñu ci mbakku donc euh, mbakku lan nga ci séentu lan nga ci xaar. li ma ci doon xaar def naa ko mooy sama doom bu màggee du xaar nga nettali ko day jël kelem dugal dégg ma wax sama set bu ñëwee mu dund ko li ci des mooy dinañu ko bind dencal leen ko. xam seen histoire papa seen jaar jaar waaw li ci des dinañ leen ko defal ay série ñu gis ko mais yow ragaloo conséquence lépp dal seen kaw wala affaire yooyu lépp lu ma laal dootuñu ko laal billaay wallaay lépp lu ma laal dootuñu ko laal waaw Thierno Moussa ana jaan yi man mosuma yor jaan <laughs> man kay mos naa la gis ak jaan du woon man de du man de man du may laal jan fen da mel leg da nga bayyi lepp luy sëriñ toog manam nekato sëriñ gay ñewatu ñu di la dila fay pour nga liggeyal len ben affaire. lol mën ta ñak gars nga fess fees kër ga boo demee léegi ñu ngi liggey ñi ngi liggey lol mën ta ñak parce que lol moy lo xamantene moy lima mom te am ci lu bari nak xalé yi ma ci ñu am ci lu bari lolou sama la. mais yow ay nit dañuy ñew ci yow pour liggey ay nit nga len nga kay def wala. yow xam nga ma de. damay te tey jii bu ma ñëwoon ma ne la sama caméraman bi daf may déranger damaa bëgg nga liggéeyal mu ko mu dof mbaa lii mbaa mu koy def. bokk na ci sama for mooy mosuma liggéey nit mën naa sama loxo te duma ko mas a def. kon yow nan ngay def lan lan ngay defal nit ñi ban genre liggéey. xadi man damay bàyyiloo sàngara damay bàyyiloo cigarette damay dindi liggéey su fekkente ne tey li ma arrivé woon daf la arrivé dama la ci àtte léegi waaw jeexal guerre gi waaw. baax na ñu lay jaajëfal. jërëjëfate ñu ñibbi yàlla na yàlla def jàmm.